waduha yalla mo ci yor yor yoor la leppay leer alaaji mamadou cisse mara wa gol allahumma salli afdal salatina ala as'adi makhluqatika sayyidina muhammadin wa ya lil muhammad ya manaloo muhammadu ci rajo almadina fm ngeen di ci ànd ak sëriñ mara mi ci xam-xam bu sell bi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 ci dara jaam la niy ci dara la nu sàkkee kooka mooy muhammadu rasulullah yaa nin gënal sayduna muhammad yaa ma leen gënal yaa ma leen mënaloo muhammadu rasulullah su la yàlla mayee baat bu bismil ilaahi teewlu leen te dégloo Jadi aku mana putri mawai lo am sana farmasi wabdu ha amalah lai garagam yau mi khamun lah tengah kham bakai fadam farmasi wabdu ha amalah lai garabam yau mi khamun lah tengah kham bakai fadam esok deme bulan biyau sejanggara lumma dan naga kuah bulan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 di góor gu bon goo xam ne nii day def viol gàllaaja ngi di aar jigéen ba ko siis wuti ko yow jigéen jile kon duñ la siis gàllaaja ngi di aar jigéen ba duñ ko siis wuti ko yow jigéen jile kon la siis kiir laayu kër am na fa yow mu yaru sa kër dana la aar ci mépp ndog bi gaar sa kër kiir laayu kër am na fa yow mi yor sa kër dana la aar ci mépp ndog bi gaar sa kër rabak jineeg lum mën a doon tey sonle galaaja ngi gu baax ci kër di perle rabak jineeg lum mën a doon tey sonle galaaja ngi gu baax ci kër di perle chauffeur bi yow wutal la aar sa oto bi ci accident yi dëkke am ci tali bi chauffeur bi yow wutal la aar sa oto bi ci accident yi dëkke am ci tali bi kon mu musal sa oto bi ci fenqaloo musal la it ci sàcc si te doo xuloo kii sa ngi ni ñaari anam moom la ma ne gisoo soxal leeral sa xel mu mën a ne kiisa gi ni ñaari anam moom la ma ne gisoo soxal leeral sa xel mu mën a ne bayree ngi ni bu baax ci njaay tey siiwal ci bëgg si mbiram ya dox ci Sénégal bayree ngi ni bu baax ci njaay tey siiwal ci bëgg si mbiram ya dox ci Sénégal Kitab wab duhaa bu ko fàtte tere la bok am na njariñ di yokkute kitaabu wab bu ko tere la bok am na njariñ di yokkute bul fàtte kat cuuraay dalay fajal sa wokku ji docteur gisul moo koy weral bul fàtte kat dalay fajal توفجي puji بسوي moo koy wéral oto ngi ni kat kat la yow bu bakkane sa soxla yow moo ko soxal fo mën ne oto ngi ni kat kat la yow bu bakkane sa soxla yow moo ko soxal foo mën a ne ku def fo foo man dine mu andi ko ak seegi ni bu gaawte wóor yow ko ko def commande foo man dina mu andi ko taxe ngi ni bu gawte te wóor yow ya jàpp ko saa boo jugee yow ya nan ko mu lay fajal sa soxla yow ya mi bëgg dem dee ko teral saa boo jugee yow nan ko mu lay fajal sa soxla yow mi bëgg dem dee ko teral ma wax la kër marara borom pharmacie ba mooy géejawaay ca boori lii sa limam ba ma wax la kër maara borom pharmacie ba mooy géejawaay ca boori lii sa limam ba ca lii sa sayidina limaamullahi foofay këram ca begg ba billahi ca lii sa sayidina limaamullahi foofay këram ca begg ba billahi farmasi waktu ngi jàpp ko yow jiima film ki ay garap amna fa farmasi waktu hari ini jatuh yow jiima filim ki ay garap amna na fa yow na julli nag ci sayidina aksa ak saaba yaag wa ahmadu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 gëjoon naa di taalif ngir ñii di sàcc taalif te seeni bàyyi fer baasin fa min aseytaani rajim kooku mooy muhammadu rasulullahi ku lay jaay taar na sax الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المحدوب عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاتح لما أقلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله سبحانك لا حلم لنا إلا ما حلمتنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم بحق ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين

fa tabarakallah nonu la ñaané duggu émission bi si bismillahi rahmaani rahim ñaan ka hi rek lepp jaar fa émission do hadon jaar ta moy agalé kok alhamdulillahi rabbil alamin comme nan ko adawo dan koy defee nak dañuy commencé sunu kaddu si ñaanal way jiitlu yi yi jiitu yi fépp fo xamné kaddu fa nuy ñaan nu yonne len ay ikhlas gannaaw ba nu ko defee xaddiya si sallallahu alayhi wa sallama def ko xaddiyee bépp jullit boo xam ne ma nga barsàq ñaan yàlla yokk seen leer ñaan yàlla beesal yërmande si ñoom ñaanit fa tabaarakalaa yàlla taxawu seen gannaaw noonu la ni nuyoo kilifay dina yëpp fa tabaarakalaa comme ni ne aadoo di koy def di ñaan yàlla yàlla àggaleen si martabay maam yi martabay wayjur yi di ñaan yàlla di wéral seen cër yàlla guddal seen fan lool lool lool lool fa nuy yàgg di nuy jiite di nuy kër gi muy almadina fm almadina fm ngeen mën koo jàpp 100 point 8 fii si dakar waaye ngeen mën am 97 point 8 sa kaolack nin koy waxee nag bunt booy dugg si kër sa bunt ba ngay jaar kon nu ngi nuy borom kër gi di koy ñaanal muy sëriñ mahamadou mansour ñas ak ñi nga xam ne ñëpp noo koy gunge si liggéey bi fa Ibrahima Etia sëñ Omar Mbacke Seck ak sunu technicien bii nga xam ne moo nuy wettali dimanche bu nekk muy Iba Mar Diop fa tabarakallah nu ngi ñaanal kër gi di Almadina FM di ñaanal ñëpp ñoo xam ne bii nu ngi fi yëngu it di ñaanal fa tabarakallah li borom kër gi yéene si kër gi yëpp fa tabarakallah yàlla motal ko yàlla yokk fi tawfiix yokk fi natange. yokk fi sutura noonu la ñuy ñaanalee sëriñu daara yépp comme nañ ko daan defee ndax nooy kóotalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal imaam yi fa ñi nekk ci jàkkee jumaa yi ñépp di leen ñaanal di ñaanal ay imaam bi yépp fa tabarakallah yàlla yokk salaam yàlla it yokk sutura dinañ koy wax sutura fa mooy lépp yal na yàlla yokk sutura fii si senegal di ñaan ñaanal woy tawat yëpp yàlla woyefal cër yi moo xam tawatu tànk ya la moo xam tawatu bët ya la moo xam tawatu dégg-dégg ba la moo xam tawatu bopp la tawatu biir ak lépp loo xam ne bii tawat la rek comme na ma koy waxee ne allahu saafi nan koy waxee ne yàlla mooy saafara nu ngi ñaan fépp bépp woy tawat yàlla yónni la sifa yàlla yónnee la sifaa ba fa tabaarakalaa yaram yëpp woyof fa tabaarakalaa moo xam ñi nga xam ne bii ñu ngi si hôpitaux yi wala si poste de santé yi wala ñu nekk si kër yi ñëpp fa tabaarakalaa yàlla yónnee leen safara tawatu poos tamit ndax fa laa tawatu physique dafa am waaye tawatu poos te mooy poos yi woyof fa tabaarakalaa nuy ñaan yàlla na ma ko waxee woon sutura yàlla yokk sutura ba ñëpp ba ñëpp macha allah borom kër yëpp. ak képp kuy doomu aadama tey sabablu lu baax yàlla yombalal la tëdd ak tibb ak sangu am na mbokk mu ne ma lan mooy tëdd ak tibb ak sangu ma ne su dee tëdd de mën nga ko jàppee dëkkuwaay nga xam ne kuy borom kër rek ba nga boo luyee ba nga tàggoo luyaas fa tabarakalaa su dee tibb képp kuy borom kër boo xëyee da nga joxe dépense pour lu ture ture yeeg eh, ñaseen yi fa tabarakalaa mën di xewlu waaye képp kuy borom kër fa tabarakalaa da nga waddu da waddu say njaboot kon looloy tëdd ak tibb ak sangu di ñaan yàlla yombalal ko ñëpp fa tabarakalaa di nuyu tey siyaara nga xam ne macha allah dañu see bëri ay wëllëre lool ñi nga xam ne nattu daf leen a dab nu nekk si prison yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal fa tabarakalaa di xam ne barab bu nattuwaay la nit dana fay nekk amaana bu fa nekkul woon fan yooya lu gën a garaaw loolu mënoon na koy dal te li nu koy wax lu nit di nettali rek yiw la dafa tabaarakallaa mën nañ la téye foofu amaana fekk buñ la fa téyewul woon leneen ak leneen ak leneen loo xam ne bii e, mën nay ñëw loo xam ne bu mooy gën a diis e, barab boobu nga nekk kon nu ngi ñaan yàlla yónnee leen ixlaas fa tabaarakalaas su amee tamit yàlla sore leen leen ak lépp loo xam ne mën na leen fa delloo fa tabaarakalaas seen émission Wadduha si Almadina FM euh, si minute yu néew da ngeen nu mën a topp numéro bi ngeen di jokkoo ñun mooy 33 868 27 62 33 868 27 62. pour ñi nga xam ne jotuñ ko woon a am fa tabarakallah di wax ne émission bi direct la fii si Almadina FM 100.8 97.8 sa Kaolack fa tabarakallah nu may nu minute yu néew rek wala nuy wala nuy dem si bu mu jokkuwaay bi dañu nuy njabootu Wadduha yëpp ndax fa tabarakallah Wadduha njabo équipe la boo xam ne ñu bëree bëri ñu yàlla dimbali noo si gunge Mara Cissé di ko si jàppale saaxir ak baatin dañu si jiital sunu mag sunu wëllëre di alxaaji xaadim Rasoul Guèye fa tabarakallah eh, nee naa képp ku def 3w point wadduha point org da xam ne liggéey ba fa nekk liggéey bu mucc ayib la macha allah da nga xam ne liggéey yu yéene moo fa nekk waaye da nga xam ne ki ko def pasteef bu mat sëkk fa tabarakallah moom la ko booleel kon nu ngi nuyu sunu mag di alxaaji xaadim Rasoul Guèye di koy ñaanal di koy ndokkeelit waaye di nuyu sunu waajur yi nga xam ne nonu nekkal point 1 di leen jéggalu it fa tabarakalaa si téléphone yi ndax macha allah sa numéro téléphone di waxee ko simé jaay heure bu nekk nu di lay wo nu ngi leen si massaw lu bëree bëri di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla yokk guddal seen fan yàlla yokk wéral seen cër yàlla it barkel njaboot gi te mooy alfuseynu Sagna ak Adja Fatou Ndiaye nga xamne nonu nekkal point 1 fa tabarakalaa sunu jigenit it nga xamne allah. ku kenn la si Mara Cissé muy soxna Aram Ndiaye Adja soxna Aram Ndiaye di koy nokkeel bu baax si xaaj bi fa tabarakala mu nekk tëngéej moom it nu ngi koy ndokkeel fa tabarakala di koy ñaanal xam nañ coono yeeg pasteef yi yi mu def yëpp si Mara mu toll macha allah dana am ñu bëri ñoo xam ne dana leen di yëgal ne Wadduha mën ngeen ko am si almadina loolu lépp doon pasteef doon yéene moom it nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal yàlla. di koy ndokkeelit si barab bu màgg boobu mu bàyyi ko doon mottali juróomeelu ponk islaam te mooy xajju baytulaayi la xaraam di nuyu suñu wëllëre yi sëriñ Kalidou baax fa tabarakallah maa ngi koy nuyu ak ay soxnaam soxna ay sëtu soxna Aminata di nuyu turandoo ba tamit muy alxaji Modou baax noonu la ñuy nuyee macha allah wëllëre gisee amagul waaye macha allah xol yaa ngay gisee muy Kalidou Gaye euh, fa tabarakalaa Seex Sëriñ Kalidou Gaye maa ngi lay nuyu bu baax di lay siyaara di lay wax nga jottalal ma sama nuyoo si Seex Ahmad Tidiane Niang bu RMD fa tabarakalaa Sëriñ Seex Ahmad Tidiane Seex euh, Ahmad Tidiane Niang bu RMD fa tabarakalaa waaye Seex Ahmad Tidiane bi tey bu RDV tamit nu ngi koy nuyu di koy siyaara niki noonu Seex Ahmad Tidiane Gadiaga moom it di sama rakk fa tabarakalaa di ku nuy jàppale si liggéey bi semaine bi passé man man ak moom noo fi togon tey mu nekk si tukki tax waral wettali si wunu nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaare di koy ñaanal di nuyu soppe Wadduha yëpp fa tabarakallah ñi nga xam ne noo nekkee Dakar ñi nga xam ne noo nekk si région yi ñi nga xam ne noo nekk bitim réew fa tabarakallah nu bari fay soppe lool ñoo xam ne ngi ko 3 ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di sàkku si ñoom ñaan di leen wax na yëg na ñaan gi ndax vingt 22h ñu bëree bëree bëree bëri dañ daan am Wadduha si Siwal FM fa tabarakallah bi amee ay jamono yoo xam ne bii déggunu ko fu ne la lay nit di woowee di lay laaj sabab bi macha allah seen ñaan ak seen yéene googu tax macha allah nuy mën a am Wadduha si même heure ba bi nga xam ne moom lañ ko doon am si 100 point 8 fa tabarakala ñoom ñëpp nu ngi leen di ndokkeel nu ngi leen di ñaanal nu ngi sàkk si ñoom ñaan ku si mel ni fa tabarakala yaayu Wadduha di soxna sëy waaye alxaji Abdoulaye Mbeng sama jarbaat fa tabarakala alxaji Modou gay bu Tëngéej fa tabarakala soxna Jaara Mbooj bu soxna Jaara Mbooj fa tabarakala nu ngi koy nuy bu baax bu Kër Masaar niki noonu soxna Fatou moom it nu ngi koy nuyu bu baax fa tabarakallah di leen siyaara di nuyu wëllëre di jàlloo dëkke wakkaam koo xam ne bi macha allah moom ak ñu bëree bëree bëri comme ni ko ñu bari defee si ne jébbal nan la sa seen bopp fa tabarakallah moom mu bokk si nga xam ne ne bi daf na jox léppam nu ngi koy nuyu di koy siyaara di koy ñaanal di ñaanal njabootam ak fépp fépp fépp foo xam ne wëllëre soppe Mara Cissé ma nga fa wala soppe Wadduha ma nga fa barak tabarakallah di nuyu tey ndokkale bu baax tamit eh, soppe yi ndax macha allah lépp loo xam ne ñëw na si Mara Cissé soppe yi yëpp noo ko bokk si tur bi nga xamee ne bii dippee nan nu ko talaata bi jàll sa tiwaawan di doom si alxaaji Konta fa tabarakallah kon alxaaji Modou Konta fa tabarakallah nekk eh, tiwaawan moom it nu ngi koy dalal jàmm fatabarakala di ñaan yàlla barkel ko yàlla def ko mu nekk si doomu tànne fii yàlla it yàggal ko ak ay way-juram fatabarakala muy xew-xew bu am solo fatabarakala nu ngi si yokk ndokkeel soppe yëpp ndax lépp lu ñëw si ñun rekk si mbégte dañ koy bokk ñun kon nu ngi leen say ndokkeel comme xam naa noonu lan nuy su suñu ko yëgee di nuyu soppe yi wala rey xarit yi fépp foo xam ne sunu kàddu àgg na fa rek nu ngi leen di nuyu di leen siyaara sunu wëlëre yi nekkee Suwaal sunu wëlëre yi nekk Mbuur nga xam ne fa tabarakalaa daaray Wadduha soo demee danga ko fa fekk muy wëlëre yoo xam ne Wadduha moo nu boole nu ubbi seen daara dëppee ko Wadduha fa tabarakalaa nu fay jàppale si lu bëree bëree bëri si pharmacie beeg yeneen yu bëri yoo xam ne si liggéey bi la fa tabarakalaa soxna. Euh, madame Niang maa ngi koy nuyu bu baax fatabarak la di nuyu càmmiñam tamit sëñ Yaxya Ka di nuyu seen i wëllëre yëpp di leen wax ne yëg nañ kóllëre gi yëg nañ jàpp gi yëg nañ yéene gi di ñaan yàlla sàmmal na ko ba mu doon kóllëre goo xam ne yàlla na yeex lool waaye day doon ba nekk ba jannatul firdaws fatabarak la seen émission Wadduha nu aada woo di koy def Eh, dimanche bi jàll ubbee woon na ak naa la boo xam ne dañ ne woon lépp lépp loo xam ne aajo la si kattanu borom bi bu si doomu aadama dogoo si kattanu yàlla yàlla dina ko si dimbale rawatina nag muy njàqare na ma koy waxee ne sutura baatu sotaar muy lu ama ama am solo mooy loo xam ne jullit warul a jóg te di koy ñaan laa Mawlana Alhaji Abdul Aziz daana koy wax lu bëgg lu bëri daana koy wax lu bëree bëri yàlla na nu yàlla dolli sutura fa tabaarakallaa nga xam ne julli la goo xam ne bii képp ku ko def tey am looy tiit si njàqare wala tiitaange yàlla dana la ko dàqal moom lañ ubbee woon eh, dimanche bi jàll si seen émission Wadduha tey it fa dina leen indil benn julli boo xam ne julli bu mag la salaatul hamdiya maanaam soo ko defee ba pare rek Eh, alhamdulilah da ngay am sirru alhamdulilahi rabil alamin te alhamdulilahi rabil alamin nag fa la doon lu jullit di war a saxoog moom waaye muy julli goo xam ne bii boo ko defee lépp loo sa sàkku rek day mel ni dan na la lii juróomi dërëm la doon jar nu ñëw may la mille francs kon fa la day tegtal ne loola nga doon sàkku yàlla dana la sa defal ak jàppandal muy julli goo xam ne dana ko tënk si juróomi turu yàlla yi nekk si xul huwallaahu ahad muy suratu ixlaas muy saar bu màgg a màgg a màgg doonte woo saar bu màgg di amul waaye dañ ne xul huwallaahu ahad bu fekkoon ne yàlla am na lu koy identifié yàlla am na dentité dan naan mooy xul huwallaahu ahad nga fay fekk juróomi turu yàlla te mooy huwa allahu ahadu allahu alsamadu naafila bi si juróomi tur yooyu nga koy def naafila bu rëy rëy rëy la fa tabarakallah nu ngi koy àddiyal ñëpp ndax sunu yéene comme ni ngeen ko doon xamee Wadduha toujours mooy saa yu nu toogee baaxee doomu aadama loo xam ne dana koy jariñ sunu yéene mooy ñëpp mucc ñëpp yokk fa tabarakallah te bu doon térise defe naa danoon sensé discours waaye depuis 2011 ba léegi fépp fu ngeen dégg kàddu Mara lépp loo xam ne luy mara jariñ doomu aadama la lépp luy kem kattanam gannaaw ba mu sa amee woon ndigal yàlla na yàlla beesal yërmande si moom di sama wayjur alxaji àlla siise lépp loo xam ne luy jariñ doomu aadama la si kattanu borom bi yéene nañ ko bokk ak jullit ñëpp jaamu yàlla yëpp. muy naaf la boo xam ne na ko ñëpp teewlu ñi mën a bind bind ko ñi ko mën a enregistré enregistré ko juróomi rakka lay doon astaghfirullah fukki rakka lay doon doon juróomi sëlmal rakk bu njëkk bi. gannaaw fatiha qul huwa allahu ahad moom ngay def fukk ak benn rakk bu njëkk bi ñaari sëlmal bu njëkk bi ñaari rakk yooyu gannaaw fatiha qul huwa allahu ahad ngay def fukk ak benn si ñaari rakk yëpp fukk ak benn lan lay tolloo nu ne mooy tolloog huwa huwa turu yàlla la foo déggee huwa rek la say topp yàlla rek ko man fa tabarakallah huwa allahu si laa ilaha illa huwa allahu akbar moom ngay def si xul huwa laahu ahad si ràkk bu ñaari sëlmal yu njëkk yi yeneen ñaari sëlmal yi te mooy ñett ak ñeenteelu ràkk bi gannaaw fatihatul kitaab yaa ngi def xul huwa laahu ahad yaa ngi koy def 66 boo nee 66 mooy lan nu ne mooy lafsu allah allah allah mooy tolloog 66 moom ngay def si xul huwa laahu ahad si ñett ak ñeenteelu ràkk bi boo sëlmalee ñettelu sëlmal bi te moy juróom ak juróom benneelu ràkka gannaaw fatiha yaa ngi def xul wallahu ahad fukk ak ñett mooy treize fa tabarak la treize tolloog ahad ahad moom ngay def si xul wallahu ahad gannaaw fatiha fukk ak ñett ñeenteelu sëlmal bi te mooy juróom ñaar ak juróom ñetteelu ràkk bi gannaaw fatihatul kitab xul huwa allahu ahad ngay def 66 ndax boo seetee saar bi ni wax xul huwa allahu ahad ñaari allah nga fiy fekk huwa allahu ahad allahu samad moom ngay def si 66 juróom ñeenteel ak fukkeelu rakka bi te muy juróomeelu sëlmal bi gannaaw fatiha yaa ngi def xul huwa allahu ahad yaa ngi koy def 135 nga ne 135 mooy lan mooy tolloog al samadu baatu samadu 104 la alif ak bu si yokkoo day doon 135 kon boo seetee jàng nga xul huwallaahu ahad si juróomi tur yàlla te mooy huwa allahu ahadu allahu samad comme na ma ko doon waxee nag fa tabarakala sunu boroom kenn du koy tàllal yenn ndab yenn ndab bi te du la say tegal dara rawatina nag fa tabarakala saar ba nga xamee ne bii mooy suratul ixlaas ak la sa nekk si yiw ak la sa nekk si tawxid nga jeexante si ak borom bi lim bi di tolloog lim bi di tolloog 512 fa tabarakala moom lay tollool di alhamdulilahi rabbil alamin soo calculer li nga am si ixlaas yëpp 512 la fa tabarakallaa lépp lu si doomu aadama dogu si kattanu yàlla yàlla danga koo defal su pare alhamdulilahi rabbil alamin da koy def 512 soo defee julli bi ba pare da ngay def alhamdulilahi rabbil alamin 512 door a def istixfaar nga def ko 474 nu ne 474 lan la nu ne mooy 512 multiplier ko par 7 day doon 474 kon mu mel ni 474 su mooy juróom-ñaari alhamdulilahi rabbil alamin fa laa lii yoon la boo xam ne lépp lu si doomu aadama dogu si kattanu yàlla dina am siru alhamdulilahi rabbil alamin te mooy lii la ma sa doon sàkkukat sant naa si bu baax macha allah lépp loo xam ne maa ngi ko sa doon sàkku si lu may yokk ak lu may jariñ gis naa si lu kawe sama njort dinaa koy wax nag ne pas-pas lu am solo la rawatina ki nga xam ne bii am na tawxiid si ne yàllaay lépp si ne yàllaa ne ñaan leen ma si ne yàllaa ne su ngeen ma ñaanee ma may leen saa yu weetee di deexanteeg borom bi na am dogu am yaqin gu mot sëkk si ni ki muy waxal ku jege la ku yaatu la ku laaxe biir la ni ma ko doon waxee ku laaxe biir la koo xam ne bii fa tabaraka la du tas yaakaar kon loolu yi dafay am solo bu dafay am solo lool te mooy lépp looy def pas-pas ba dëgër lépp looy def nga gëm ko gëm sa bopp waaye fa tabarak la mbir ak nu mu mën a euh, toll te pas-pas ba dëgërul yàlla daf lay bàyyeeg sa pas-pas sa ñàkk pas-pas mu mel ni kiis bu doon ne da ngay yendu di ñaw ba jant so te fasuloo boo roccee lenn dootu fa nekk kon nuy bàyyaale xel si ne lépp loo xam ne bi xibaada la lépp loo xam bi ñaan la farata la si jullit muy ñaan ndax kani ñaan lan koy ñaan dañu ko amul te moom mu am ko di sawar lool di bég lool si jàmm nyan, koy ñaan ndax lu tax koy ñaan nangul na ko nguuram nangul na ko nangul na ko xudratum ak irada mooy tax saa yu jàmm tàllal loxo bi borom boroom bi day bég lool ndax day xam ne jaam bi ku ko yëg la jaam bi ku yëg na it fa laa am na boroom ku yëg na it boromam mu ngi koy dégg mu ngi koy gis ku yëg na la it lépp loo xam ne bii mu ngi koy sàkku tële na ko moom jaam bi am na koo xam ne tëlewul daara te fa tabarakallah su ko ñaanee mu may ko kon na ma ko doon waxee rek ne jamono lépp lépp lépp tey la yokk nu ngi si Almadina FM foog naa cinquante ans si gannaaw boo bëriwul woon bu fekkee amoon nay rajo amaana benn lay doon wala du ko ëpp fa tabarak la léegi rajo yaa ngi fi télévision yaa ngi fi internet a ngi fi léegi macha allah satellite lépp àddina mu nu ne si jamono yu mu mel ni kii lépp lu xew fii si dakaar àddina bi yëpp mën nañ ko yëgandoo waaye mu mel ni ki tey ba tey ba tey tey lay jafe-jafe gën di bëri kon tegtal la si ne àddina bi am na lu koy kondir am na loo xam ne bi fa tabaarakallaa sa la nu war a gën a dellu ñun jullit donte wa donte fa woon a jóge te mooy alxuraanul karim sant yàlla bu baax sant waay jur yi bi nu yàlla dimbalee ñun sunuy wàccuwaay sunu lépp lépp lépp lépp doon alxuraan dinaa koy wax ni ma ko waxee si interview bi ma defoon ak benn surna journal si ne loola lan nu sunu jur bàyyee loola la nu yaroo fa tabarak laa te it gisuñu lu ko mooy tax sunu lépp lépp lépp lépp arxuraan la fa tabarak laa te it mm, lépp luy aajo mooy xam tawat la moo xam lu mu mën a doon si kattanu yàlla si loolu la ñu defee tabaruk si loolu yi la yàlla yi dafa lay sutura fa tabarak laa seen émission Wadduha gannaaw bi ñu leen indilee benn yoon si naafila boo xam ne day faj aajo naafila bonus la ni ni koy ni ko suñu opérateur yi di def yenn saa yi bonus 100 pour cent wala 200 pour cent ñu bëri dañ si profité pour seen crédit yokk kasaan ak li nga xamee ne bii soo ko deful doo si am benn daan waaye soo ko defee yiw yokk itte jooju ngay am si def ko mooy tax ku koy gën di def rek sa lijaaba day yokk da ngay am ijaaba te ijaabaay saa yoo ne allahuma borom bi rus lay gàntal fatabarakala nuy bëril di koy def naafila bii ma wax léegi fatabarakala kii may déglu te na si xat-xat wala njabootam na si xat-xat nag ko def yéeneel ko ko fatabarakala wala billahi la si laa ilaaha illaa huwa du tey laa ko njëkk a wax si rajo waaye fu nekk nit wooyee na ma foofu si dogu gu si dogu yàlla won ko si ndimbal loolu it comme lu nit mën a def gis sa bunt gis sa njariñ mooy tax fa émission Wadduha saa yu nu toogee danan wettali ñi nga xam ne mene bi ñoo koy déglu loo xam ne dina leen mën a dimbale gannaaw nawaafil dañ leen indil benn yoon ndax jamono xat na xaw nay dëgër fa tabarakallah loo yoon boo xamee ne bi si fatihatul kitab sunu joxee kayfiyaat bi ba pare da ngeen mën a bokkandoog ñun émission bi si 33 868 27 62 33 868 27 62 fatihatul kitab dan ne képp koo xam ne bëgg na tàggoo kumute te ni ma ko waxee woon karab rek ne ki umu mooy wala ki tëju mooy kay sabablu te fa tabarakalaat day sabablu waaye dara du yëngatu mu mel ni ki ka nga xamee ne bii day bàkkoo ku ne yàcc maa man kooku taxul tëjuwul fa dafa yàccaaral <laughs> li benn mbër doon bàkku rek ku ne yàcc maa man ku ne yàcc maa man ka koy tëggal dafa dem ba mu yàgg ne ko man mënatuma tëgg bi bàkk ku ne yàcc moom ñépp koy man kon tegtal la sina ne fa lépp lu nit di bëgg a jariñoo dafay ànd ak pasteef dafay ànd ak dogu dafay ànd ak sabablu fatihatul kitab mbokk bi si ligne bi mu maynu rek bu pare si yoon bi da ngeen mën a bokk na ñun émission bi fatihatul kitab moom lay bind gan aaye bu nekk gannaaw aaye bu nekk mu bind mu bind rabbana iftah baynana wa bayna qawmina suyee na li naas xubul aaya bu mu bind alhamdulilahi rabil alamin bi bind seeni nasabul saxwaat ba aaya bi jeex 92 fois moom la koy def mu bindaat tamit fatihatul kitab gannaaw aaya bu nekk mu bind rabbana iftax baynana wa bayna qawmina bil xaq wa anta xayrul fatihin mu bind ko 92 fois mu bindaat fatihatul kitab baax de kullu aaya mu bind inna hasala risquna ma lahu min nafat mu bindaat fatihatul kitab baxda kullu aaya mu bind nasru min allahi wa fatul qarib wa basirul mu'minin 90 fois mu bindaat fatihatul kitab baxda kullu aaya mu bind alam li defe naa ku ko dégg war a lépp aay yi bu si nekk rek fa la waxuma la 92 ba waaye juróom-ñaar ya si kattanu borom bi ak man-manam mën na tàggale nit ak kumute rawatina nga boole ko faatixa nga xam ne ni ko ni ma ko benn maam doon waxee ne ma faatixatul kitaab boo amee sekkerem mooy faateye faatixa faateye lépp loo sa dogu rek mu ngi mel ni mu ngi sa loxo te muy lu wér a wér a wér a wér ndeysaan mosoon naa def euh, émission kerew euh, si faatixatul kitaab bi ma tàngee lool ma wax ne yoon naa si secret boo xam ne képp ku ko def da nga am daamar ba ma xëyee ñu bëree bëri bëri doon ma say soññi ma ne leen xaj ña toll fa ma tolloon la rek moo tax waaye du lépp lépp lépp lépp la war a yëkkati fa tabarakallah tegtal la si ne Fatiha boo gisee 114 saar yi si alxuraan yëpp. dan ne nangul nan ne secret ba mu ngi si fatihatul kitab yomb nay gëm si ne farata la si julit mu mokkal ko ndax bët bu set julit bu nekk da nga ko jàng gën ngay néew fukki yoon ak juróom-ñaar julit bu nekk bët bu set da ko jàng fatiha te mooy julli wax julli farata yi gën néew kon farata la si julit bu nekk mu mokkal fatiha fatiha saaru rakk boo ko jàngul rakk du wér fa tabarakallah kon tegtal la si secret alquran yépp mu ngi si fatiha tegtal la si ne secret fatiha yëpp mu ngi si bas basmala te mooy bisimilahi rahmaani rahim waaye nu ne baagoo gi tegtal la si ne fële lépp soso mhm. moo xam kay fondement kër ga kay kay bind décret lépp lu mu mën a doon rek secret baa lay doon ndax lépp Iba lépp lu nit di bind si point ngay njëkkee boo tegee stylo bi rek def na point kon fatou barak la nu man nu muy tektal si ne fatiha ëpp na di xeb ëpp na di xeeb macha allah xam naa dinañ si ñu waxtaan spécial si fatihatul kitab waxtaan spécial si basmala nga xam ne basmala fa tabarakla foog naa lu àlli wa gàtt gàtt gàtt des na ko mokkal te mooy bismillahi rahmaani rahim waaye lu àlli wa gàtt gàtt war na noo mokkal fatiha mooy alhamdulilahi rabil alamin ba si xayril mahdubi alayhim wala daalina xam nga nit ñi ñaare luy faral di lu ñuy faral di dégg lu bari wala nu koy jàng lu bëri nit mënoon na sonn si ut secret bu ñëwee boo ko joxee secret si fatihatul kitab amaana xaj ña mën na koy sofental te fekk te nit mënula am lu ko gën si di muy fatihatul kitab kon yoon bi képp koo xam ne bëgg nga tàggoo kumu bind ko wala nga bindalu ko nga di koy jëfandikoo fa tabaarakallaa yàlla dana lay ubbil buntu yu xéewal yu bette fa tabarakalaa yu yaatu kon loolu lu nu leen baaxewal la tey si seen émission Wadduha di wax ne comme ni ñu koy aadawoo rek dimanche bu nekk si kattanu borom bi dinañ fas yéene di bokkandoog yéen jotaay si seen émission Wadduha si 100 point 8 fii si Dakar di 98 point 8 tamit sa Kaolack di Almadina FM kon man ngeen bokkandoo ñun émission bi si 33 868 27 62 868 27 62 nu ngi nuyu bu baax tamit Ousseynou Sène di nuyu Omar Diallo bismillah waa bismillah yaram eh, nu ngi la koy delloo yaram ndeysaan ndeysaan ndeysaan mais a dugg loolu bégte la yaram waaw maa ngi tudd Habib Mbaye rek woo naa la dimanche bi passé ah ndeysaan dëgg la dëgg la yal <laughs> na yàlla barkeel la Habib seen yëpp maay seen buur de la dafa am dafa am may manipuler ba yem si sa émission nga def Almadina FM wallaay ndeysaan wallaay wallaay la enregistré numéro bi sama téléphone sa émission yi ngay def nii sax may jékki-jékki faral di wallaay wallaay la yàlla moom la dëgg la dëgg la moo def yal na yàlla barkeel la mbay Habib damay toog sax suñu kàmbi di waxtaan ak yow ñu ne man yow de mën laa siise man leen de man laa gis wallaahi wallaahi ku nekk nag ak la a mbay bi ma ootee tey jii jot la wallaahi wallaahi wallaahi bég nañ si jokko la xam naa ne moom fan yi ñëw rek incha allah moom ñaanal yàlla rek baax na incha allah yal na yomb tabarkel maa ngi def la tuuna pour gisante xew incha allah. incha allah Mbaye Mbaye. jërëjëf barakala wéral kàddu jërëjëf Mbaye amin amin amin yàlla barkeel ko macha allah. Eh, te nu bari lool ay soppi yoo xam ne gisee mosulaam comme noonu ko sëñ Mbaye waxee nu ngi ñaan yàlla barkeel ñoom ñëpp bisimilah. waaw yaram. ah sëñ Abdoulahi Guèye. maa ngi lay nuyu bu baax di lay siyaara ma wax la si ba Wadduha mooy tur di lay ndokkeel si taalif bi am na fa wax ma yoon wallaay ndeysaan wallaay ki mooy ki doon def taalif bi léegi <laughs> lu lay njariñ am na fa wax ma yoon wallaay barakallah defal ñetti double V teg ca point mm-hmm. teg Wadduha point org nee ma say wallaay ndeysaan maa ngi lay nuyu wallaay ngi lay fay bu baax sëñ Abdoulahi Guèye moo tax. wallaay ndeysaan géey lépp rafet na. Ah, ah, ah, Fatiha boobu wallaay ndeysaan si kattun yàlla dina yomb. yal <laughs> na yàlla barkeel la. amiin amiin bég nañ lool sëñ Guèye si taalif bi. jërëjëf jërëjëf sëñ Abdoulahi macha allah soppe la wallere la moo mbokk mi nu defal taalif boobu di taalif Wadduha nga xam ne boo demee si. wat www.wadduha.org da nga ko am si kattanu borom bi bismillah 868 27 62 waaleykum salaam wa rahmatullah nu ngi sant bu baax nu ngi sant nu ngi sant hein mama kura ah ngi lay mama kura amin amin amin amin hein jërëjëf jërëjëf jërëjëf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 33 868 27 62 seen émission Wadduha fii si Almadina 868 27 62 maa ngi nuyu bu baax tamit Omar Diallo eh, di nuyu Badiane bismillah 868 27 62 mooy yoon bi bala nuy ñëwaat ak yéen si kayfiyat bismillah bismillah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ñu ngi yàlla nangul nu yaram. alaaji Diagne Parcelles. Ah, maa ngi lay ndokkel lu bari macha allah yow nga doon jokk mën nga doon jokkel léegi. waaw maa la woon sànq wax. yal na yàlla barkel la Diagne Diagne. ñu ngi ziar baax la jërëjëf jërëjëf Diagne. ñu ngi defal waxtaan na yàlla amin amin Diagne. wallaay jërëjëf jërëjëf. Ah, jërëjëf yal na yàlla barkeel la. Diagne bég nañ lool si jokko bi. macha allah rafet na trop baraka la fikk. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf. 33 868 27 62 seen émission Wadduha fii si Almadina 868 27 62 fa tabarakallah nu ngi nuyu wëllëre soppe yi xarit yi fa tabarakala sunu wëllëre eh, moo di sumaare nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal bismillah ki si yoon bi allo wa waaleykum salaam wa rahmatullah Ndeye Banra waaw Adja man la Astou ngey Tëngéej ah soxna Astou nu ngi lay siyaara ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax jërëjëf yàlla nangul no ñu ngi rafetlu émission bi jërëjëf jërëjëf ah namoon nañ seen kii de wax dëgg yàlla wallaay ndeysaan wallaay xam nañ ko bu baax ah yal na leen fi yàlla yàggal waay amin amin amin soxna yàggal taxawaay bi amin amin amin gay Seydina Muhammad amin amin amin gay mais bëggoon naa nga leeral ma ci kii bi de naafile bi ci nga wax sànq kii bi waaw waaw naafile boobu incha allah bi ma doon wax léegi nag waaw waaw bi ñu doon wax léegi. waaw incha allah noté naa ko baax na. waaw bëggoon naa nga leeral nag. baax na incha allah baax na. waaw kay baax na yal na yàlla barkeel la Guèye. amiin yaa rabbi amiin amiin. 33 868 27 62 une émission Wadoha. C'est Almadine FM 100.8 Bismillah Bismillah Assalamu wa wa eh, yaram sant bi. Ndour Ndour. Ndour Souleymane boobu la. ah Souleymane xawoon nga réer de. Ah, barke réer ba bés. <laughs> sëñ Diour maa ngi lay siyaare lu bari. <laughs> maa ngi lay wallaay maa di lay ndokkeel. Ndour Ndour. yéen fii de. alhamdulilah Ndour. man kat émission yi dama ko dëgg la rek laa dégg benn xarit. waaw. mu ne ma am na ku ko wax naan yaa ngi almadina. wallaay ndeysaan wallaay di ngeen ko mën a am dimanche bu nekk fii incha allah dëgg la sànq laa jógee géej waay dama ñëw egg rek ma jàpp ko rek. wallaay wallaay wallaay Ndour Ndour. mais yàlla xam ne maa ngi jégalu parce que booba tey maa ngi faral ñëw mais xam nga rek affaire yeeg yooyu. wallaay dëgg la Ndour dëgg la. mais incha allah xamaat naa fa ñëw. wallaay ndeysaan yow ko leer nga. waaw wóor na yàlla jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf wallaay wallaay yal na yàlla barkeel la ma dugg rafet na rafet na Ndour parce que fan fan numéro moom laa amatul woon sa sama portable dafa réeroon nag moom moo tax man woo ma la woon rek waaw incha allah dinaa la ko jox si kàttanu yàlla la soo ko fee dinaa la ko jox incha allah yal na yàlla barkeel la amiin amiin jërëjëf Ndoor jërëjëf jërëjëf yal na yàlla barkeel ko macha allah wala rey Wadduha la fa tabarakallah di sëñ Souleymane Ndour numéro bi 77 617 70 44 617 70 44 mooy numéro Mara Cissé fa tabarakallah ngeen mën a bokk ñun émission bi 33 868 27 62 868 27 62 Al Almadina FM Dakar 100.8, point c'est Kaulak. point 8 sa Kaolack nga am loon yëkkatil sëñ Ibamar. isef na nopp ya daa taxaw nib layu sëriñ Bamba ko wax lépp daa dënn ba daaya daa jot Seydina Muhammad Rasulullaay gémmañ nga am ñaari sàkkal yàlla benn sa kaw benn sa suufee kooka mooy Muhammadu Rasulullaay kooka mooy Muhammadu Rasulullaay Rasulullaay baax tey siyaara it sëñ Baara Diouf fa si Mouhamadou Rasulullah taalifam bu am solo bi nga xam ne moom lañ ko lërante depuis 2011 mooy gunge sen émission Wadduha sëñ Baara Diouf nu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal di ñaan yàlla barke la si barke Duha fa eh, di wax mbokk yëpp it site bi www point point org w ngay def a de ñaari de def usa point O fa tabarakallah bépp information bu nit bëgg a xam si Mara Cissé su fa demee dina ko dina ko dina ko xam ba tey macha allah dina ngi baaxee mbokk yi yoon boo xamee ne bii lépp luy aajo si kattanu borom bi yàlla mën na la koy fajal te gannaaw ba nga naafila ñaari rakka rakk bu nekk gannaaw fatihatul kitab naafila yi yëpp nag képp ku daje kitaabu Wadduha da nga ko am muy téere boobu nga xam ne 313 pages la doon téere boo xam ne lu njariñ yu bëree bëree bëri moom la ñu si daxañ doon téere boo xam ne comme ni ma ko waxee woon man nga ne appartement la boo xam ne juróom-ñaari sambur juróom-ñeenti sambur moo si nekk sambur bu nekk it fees dell dell dell ak njariñ ak leer mooy kitaabu Wadduha naafila bi ñaari rakk gannaaw fatiha alam nasrah moom ngay def juróom-ñaari yoon ràkk bu njëkk bi gannaaw fatiha lam nasra moom ngay def juróom-ñaari yoon ràkk ñaareel bi gannaaw fatiha isaja nasrullah moom ngay def juróom-ñaari yoon isaja nasrullah moom ngay def juróom-ñaari yoon soo sëlmalee nga jàng nga jàng saar yi te mooy suratul yasin nga jàng ko juróom-ñaari yoon loolu bu la ko waxee rek tegtal la si lépp luy aajo mën na la koy saafaral ndax yaasin li ma xuri a yaasin dañ doon wax alxuraan su fekkoon ne am jëmm la mën na noo wax ne yaasin ay xol mooy placé wu placé xol te xol mooy kondir jëmm doomu aadama kon tegtal la si ne yaasin lépp lu si ni dogg si kàttanu yàlla yàlla mën na la koy may xam naa dinañ siñ def émission spéciale suratu yaasin comme ni ne ko defee woon ba nit ñi gën koy bëgg nit ñi gën koy fonk nit ñi gën see gën see xiirtal seen bopp xiirtal si seen njaboot te mooy suratu yaasin mu bëri njariñ lool lool lool lool si luy saafara lépp lépp lépp lépp luy tawat suratu yaasin it mu nekk si lépp luy pas-pas lépp luy njabar lépp luy njabar fa tabarakallah secret ngi si yoo xamee ne bii si sóoratu yaasin soo ko defee loola day toj day yàqu ba pare day fayu foto tabarakallah mu nekk si sóoratu yaasin tamit buntu xibaada yoo xamee ne bii soo ko jëfandikoo fa tabarakallah wilaaya dina la yomb te mu luy wilaaya mooy lépp lu yàlla gërëm nga dëgg nga uti ko lépp lu yàlla tere tamit nga du ko te foog naa yiwu àddina mooy loolu saxaadatu daaray ni si loolu lañ koy amee ndax fii di àddina salle d'attente rek la salle d'attente nag ñaari du yàgg kon fa nga xam ne bii mooy dund barsàq nga xam ne mooy dund gu sax lépp loo xam ne ne bii ko nit mënee def loola yàlla dana ko ko yàlla dana ko defal mu yiw loolu la nit mënula am lu ko gën a màgg te buntu daa ngi si yoo xam ne bii fa la si suratu yaasin képp ku koy def yàlla dana lay dëdda dëddaleeg lépp lépp lépp lépp luy safaan waaye it fa tabaarakala sa xol sa deret sa yax sa lépp lépp lépp day doon leer fa la <coughs> ay yoon a ngi si yoo xam ne lii ñu bari di yittewoo te muy bàyyire nu koy tekkee bàyyi ree moom it mën nañ ko am si soratu yaasin xam naa dinañ si def waxtaan spécial lii tënk la woon rek si ne ñaan bu nu la jox te soratu yaasin bokk sa bu na sa xel dal lool lool lool lool lool si ne la nga sa dogu yàlla dana la ko defal gannaaw naafila bi soratu yaasin moom ngay jàng juróom-ñaari yoon gannaaw soratu yaasin soratu moom ngay jàng juróom-ñaari yoon gannaaw suratul fathi suratul mulki ngay jàng juróom-ñaari yoon <coughs> gannaaw loolu nasru suratu nasr moom ngay jàng juróom-ñaari yoon fa tabarakallah lii lépp lépp lépp lépp loo si dogg si kattanu yàlla ak man-manam yàlla dana la ko yàlla dana la ko defal loolu nu ngi koy xaddiyal wóllëre yi nu ngi koy xaddiyal ñi nga xam ne bii nooy connecté wu si Wadduha fa tabarakallah di émission boo xam ne dimanche bu nekk da ngeen ko mën a am si almadina fm 100 point 8 di nuy bu baax tey siyaara alxaaji Fallou Ka nga xam ne mën naa ne mooy sama bunt ndax ñëpp ñu jaamu yàlla ñu bari ñu yàlla dogal ni ñëw sa daara ja yàgg na nuy dégg Touba téléphone yàgg na nuy dégg soo wàccee si buntu lycée Seydina Limamou Laye bu géejawaay am na kuy jaay portable ku mu jàkkaarlool soo demee sa moom dana la woon dëkkuwaay bi muy taale fa tabarak laa doon ko am yar doon ko sawar fa tabarakalaa doon ku nangu it kon nu ngi koy ndokkeel bu baax moom it alxaaji falluka di koy ñaanal di ñaanal njabootam jën ñaan yàlla yokk yàggal ak ay wayjuram yàlla it yokkal ko ay xéewal fa tabarakalaa di nuyu bu baax tey siyaara siyaara it fa la alxaaji konta comme ni ma ko waxee woon mi nga xamee ne bii moo nu dippee doomam al talaata bi jàll mu dëkk Tiwaawan mu ngi koy nuyu di koy siyaara fa tabarakalaa di koy ndokkeel 33 868 27 62 xamna nu ngi fay xar ne bëgg nañ dimanche bi di ñëw danañ ko def comme émission mo xam sar la comme numa doon waxé nous wala la nous la Nous bi dañu bëgg nu ñëw ci nañ dimanche bu nu si loo xame ne bii dana nuy jariñ fii si sunu dund waaye dana nuy jariñ ëllëg fa tabarakallah si dana nuy jariñ ëllëg euh, barsak looloo yéene Wadduha depuis 2011 si kat depuis 2011 yàllaa ngi nuy dimbale yoon booba la jël yoon boobu la nu jël fa tabarakallah nu si ndokkel bu baax ndax Wadduha du mara si rek nga xame ne bii ñëpp noo koy jàppale si liggéey bi. nu ngi leen si ndokkeel di leen ñaanal soppe yi allah ñu dëkkee Sénégal ñu nekk bitim réew ñoom ñëpp nu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal di leen ñaanal ndax lépp loo xam ne yëkkati nañ ko rek nu gunge nañ nu si Wadduha solidarité bi ñu defam si koor gi fa tabarakallah jàpp nañ si moo xam suukar moo xam ceeb koddaay lépp lu mu mën a doon jàmm yàlla yàlla booleel Wetel bokunan nan ko ak ñun fa ba ña koy jot jot ko it tay def ko yépp dañ ko def li wacc xillaa kon ñoom ñëpp nu ngi leen di ndokkeel si di waxit ne ci katnu yalla sunu yalla dimbalé danañ gën a taxawal ha solidarité ngir ba 29 bu nek ci wër bu nek 28 wala 29 la fa jotee daje si kàttanu borom bi nu seet jaamu yàlla ya nga xam ne danañ di ñëw daara ji di nuy am lu nuy deey si loxo bu jotul gannaaw nu seet ña koy yayoo si kàttanu borom bi nu baaxee leen ko xam naa si kàttanu yàlla sunu yàlla dimbale ko gën a yaatal 33 868 27 62 mooy yoon bi.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

ngir faj sa mbir wadduha yàlla moo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji mamadou cissé mara wa góor allahumma salli afdala salatin ala اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم nu ngi ni tamit sunu wëllëre di cheikh saw fall fa tabarakallah cheikh fall saw momit di

33 868 27 62 mooy yoon bi bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah yal yàlla nangu Adja. ah soxna Ndiaye gën naa dégg Ndiaye wallaay gëj ñu déggante Cissé jërëjëf Ndiaye maa lay ziare bu baax yal na yàlla barkeel Ndiaye Ndiaye maa ngi ziare suñu xalifa général <laughs> wallaay ndeysaan mu ngi mu ngi lay fay mu ngi lay fay ah, Cheikh Ahmed Tidiane <laughs> wallaay ndeysaan <laughs> na def ak coono mi ngi sant bu baax Ndiaye ñu kontaan ci daara ji wax dëgg fa yàlla Ndiaye waaw sama borom kër nee na ngi lay yóbbanti nuyoo bu baax wallaay ndeysaan maa ngi koy fay waaw nee na moom malien la bu ñëwee daal sa émission da koy déglu ndeysaan ndeysaan waaw man déggatuma la woon siiwal wallaay dégg dimanche bii passé. di mhm. portable am la doon manipuler rek dégg la mu ne ma i dawal nga jàpp euh, Mara Cissé. ndeysaan ndeysaan wallaay wallaay may jàpp ndek almadina la. wallaay wallaay <laughs> dëgg la dëgg la dëgg la Ndiaye xéewal bu rëy la moom wax wallaay yal na yàlla barkeel leen jàpp ci émission bi bu wallaay wallaay wallaay wallaay madame Ndiaye kontaan nañu jërëjëf yaa ngi dimbale jaboot yi. amiin amiin yaa ngi jàppale juddit yi bu baax a baax. amiin jërëjëf yàlla sàmm. jërëjëf yàlla yàlla yokk yool way jur ya ca. amiin amiin amiin amiin yàlla yéegal leen ci barzaq Seydina Muhammad. amiin amiin madame Ndiaye sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Ndiaye man moom xam naa yàlla moo boole suñu xol parce que. Mm-hmm. bi wax naa la bi may njëkk a déglu émission bi siiwal. Mm-hmm. bi ma ko bi ma ko njëkkee déglu ma de ah kii moom war na am daara alxuraan wax dëgg wallaay ndeysaan léppam alxuraan la wallaay ndeysaan bi ma déggee na ngay wax ne Wadduha mu ngi pare daara alxuraan damaa tëb wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay wallaay ma toogaat ba jëmbi jamono mm-hmm. ma ne daal man xamu nu may def ba jot maara mm-hmm. wax ko ne li mu yor mbiru daara ji la wallahi kon defati publicité ci benn téere boo bind nañ ko jox waa daara ji dëgg la dëgg la su la jotee rek dama lay wax na nga jël fàllu siise wala wala matar saar wallahi wala defal far ma dégg rek ma ñu ko tëb <laughs> kër wallahi ndeysaan ah, wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi dëgg la dëgg la wallahi suñuy xol day gisee dëgg la dëgg la njaay kontaan naa lool wallahi wallahi wallahi jërëjëf jërëjëf jërëjëf madame njaay yàlla yokk sutura bi amin amin amin yiir la amin amin amin jërëjëf Ndiaye kay ñoo ngi lay suivre bu baax a baax jërëjëf barakallah kontaan na lool wallaay ndeysaan na ngi koy nuyu lu bëri ne kay branché naa ko ci émission bi bu baax a baax wallaay ndeysaan wallaay xam naa léegi su ma ko ne damaa bëgg a ñëw foofu du wax xam nga góor ñi moom booy dem ci seen ji ñaan dañuy fag ne seen bopp yi nga bëgg a toj wallaay ndeysaan <laughs> mais léegi comme branché naa ko ci émission bi wallaay wallaay maa ngi dem foofu du ragal wallaay ndeysaan loolu mbégte la lépp lu baax la loolu mbégte la wallaay wallaay wallaay madame Ndiaye kontaan naa lool jërëjëf jërëjëf maa ngi ziyaara soxna aram sama doomu baay boobu wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan ziar auditeurs yi yëpp wax dëgg fa yàlla dëgg la dëgg la Ndiaye ah, jërëjëf waay jërëjëf maa ngi ziar Mouhamed Niang tam wallaay ndeysaan oustaz euh, Mouhamed euh, sëñ Khadim Rasoul Gueye dëgg la ndeysaan ndeysaan alhamdulilah wallahi wallahi barakallah barakallah barakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf madame Ndiaye eh, barakallah macha allah ma ne ko wëllëre la macha allah ku yàgg a topp Wadduha eh, nu ngi koy ndokkel moom tamit di nuyu soppe boobu te mooy jai Ndiaye eh, sëriñam di ñaan yàlla yokk leen barke yàlla barkeel njaboot yi yàlla yokki xéwal yàlla dàqit gàllankoor noonu ma ko waxee macha allah eh, sopp yooyu mu nuyu waale ñëpp it macha allah si sama kàddu nu ngi koy fay te mooy sunu mag yàggoon noo wéttali di Oustaz Mohamed Niang waaye sunu rakk di Thierno Djibi Sow waaye di Mustafa Diouf ñoom ñëpp fa tabarak la nu ngi leen nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel <coughs> émission Wadduha comme noonu mu ko waxee rek fa tabarakalaa yéeneen bi mooy lépp lu yàlla gërëm noonu mu ko waxee képp ko fay ñëw doo fa fekk lu yàlla gërëmul si kàttanam ndax looloo yéene bi eh, macha allah gëm nañ ne fii nu nekk jaarwaay bu gàtt la lanu fay liggéey moom lanu fas yéene ëllëg mu nekk yiw loolay tax lépp lépp lépp lu àndul ak ngërëmu borom bi dañu koy moytu sunu kéem kàttan defe naa képp ku ñëw daara ja la ngay njëkk gis bontu ba mooy bu fi benn soxna ñëw te ay atam ëppul ñaar fukk waaye bu benn soxna dugg ci daara ji loolu dafa yiw dafa yiw te mooy solo ba nga xam ne bi moom la sant jullit mu soloo ko bu melul noonu bu moo dugg ci daara ji kon si kat doxaa ba nu ko tuddee sunu lépp mooy tax foto tabarak laa lépp loo xam ne dajewul ak e, ngërëmu borom bi dañu koy daw sunu kem kéem kattan fa tabarak laa noonu mu ko waxee daaray wadduxaa am na mbuur dana am feneen ak feneen si kattanu yàlla ni ma ko waxee wadduxaa solidarité yéen nañ mu gën a yaatu ndax la nan koy waxee si ne la ëpp nit di koy jaamoo yàlla rawatina borom wërsëg mooy dimbale néew néew ji doole lu am am solo la alal la si nit di muurloo mooy loolu la nga lekk mu rees la nga sol mu ràpp ak la nga def fi sabilillah lu dul loola rek yaa ñëpp ko bokk loolu nga mën a tuddee ne wërsëg ak muur xaw nay sore wërsëgu ki am wërsëgu immeuble boo xam ne bii fa tabarakallah air prise 15 la su guddi jotee si benn néeg rek la am wërsëgu tëdd waaye si benn lal rek la am wërsëgu tëdd lal booba sax du ko fees sa genn wàllu lal ba lay tëdd daf koy yem ak ka nga xamee ne bii benn néeg rek la ko yàlla may seen wërsëg mooy sa benn néeg lan mën a tëdd loolaay wërsëg fa tabarakallah <coughs> la say nit di muurloo nag si alal. Moy lolo nu wax la nga sol mu rap ak la nga lek mu res ak la nga def fi sabilillah kon eh, nu gën di jaamu yalla ci doomu adamay gën di jaamu yalla ci ñi seen loxo jotul seen gannaaw li ne wax sadaxalu amma amma am solo la am luma ci ma si si émission bi jall si da ngay gis galankor yu bëree bëree bëri lolu man na koy waral mën na koy waral fa la nuy wax na it nga mën a jàppe jëmmi doomu aadama ak turam ak sifram yàlla dénk dénk nu si ay secret yoo xam ne bi fa la mën nay am yoon yoo xam ne bi su sa jaaree lépp loo xam ne xéewal la bu dee lu muy sàkku dina yomb waaye lépp loo xam ne njàqare la am na yoon yoo xam ne su fa jaaree yàlla dina ko ko jàppandalal te lépp lu mu si def rek mu def ko li wacc xilaa jiital si li wacc xilaa fa tabarakallah yàlla dana ko si defal sutura kon nan di gën di bàyyi xel way néew ji doole yi fa nax ndax eh, dajale doomu aadama jox leen nu lekk ba macha allah ba sant pare naan ba màndi ne alhamdulilah ñaanal la làmmiñ yooyee yëpp macha allah làmmiñ dana si am yu bëree bëri yoo xam ne sa ñaan dana dal loolu day am solo loolu danay dimbale nit si yenn tolof tolof yoo xam ne mën na ko koy fanqal fa tabarakala wala loo xam ne bii lu ko dëng ma lan lu te nar doon naka sudul noona yàlla soppil soppil ko ko mu nekk yiw loolu it fa tabarakala yooyu yëpp sarax da koy def mooy tax képp ku yàlla def mu ñëw daara ja la jiital ñaare mooy seetal la say yoon seetal la say buntu sarax ndax day xaw a nuroog ne code code lay doon pour nu mën a am si lee nga xame ne bi nu ngi la koy sàkkul kon fa laa nu bàyyale xel loolu bu baax a baax a baax xam ne bari na si luy dal nit si yenn yi tolof tolof si yenn yàqu-yàqu yu bëree bëri bari li ni wooye cet ñeew di saraxe mën na koy waral fa la kon képp koo xamee ne bi yàlla dimbali na la nga am loo mën a jàmmoo yàlla si sa wërsëg ngay gën di jaamu yàlla si sa wërsëg seen émission Wadduha fii si Almadina 33 868 27 62 868 27 62 ya ngeen fii wettali ko ak seen mbokk Alxaaji Modou Cissé fàttaliwaat ñëpp rek pharmacie bi wax leen ne si kattanu borom bi incha allah bu nu yàlla dimbalee fan yu néew da ngeen fa am tamit loo xam ne bii day woyofal yaram bu sutante te lépp lépp lépp di dellu si alxuraanul karim na ma ko waxee woon na tawat yépp mbindeef la tawat yëpp yi tur la noo tuddee bii lii bii la la bii la la waaye tur la rek fa tabarakalaa mbindeef la borom bi ko yebal su ko yebalee rek mu bàyyi mooy tax si kàttanu yàlla yàlla dénk na nu secret yoo xam ne lépp lépp lépp luy tawat si kàttanam ak man-manam su ko nit di jëfandikoo yàlla dana woyofal yaramam si kàttanu yàlla yéene nañ ko fan yu néew nu indi leen ko si seen pharmacie Wadduha <clears throat> ñu ne ko ñu bari waxe woon tamit xelal buy tuur ndox si kattanu yàlla yit guddi nga xamee ne bii su tëddee guddi bu xëyee lalam tooy même man nga wax mag tamit ndax yenn saa yi nit am lu ëpp vingt nit am trente nit am quarante loolu di koy faral di dal moom it si kattanu yàlla ak man-manam mm, danan yéene nan ko indi si pharmacie Wadduha si kattanu yàlla it bu nu yàlla dimbalee. Eh, liy aar barab ba nga xamee ne bii sàcc du fay dugg su fa duggee fa tabarak laa yéeneem du sotti si kàttanu yàlla suñu yàlla dimbale it fan yu neew yéene nañ leen ko indil si pharmacie Wadduha si kàttinu borom bi it jamono yu néew suñu yàlla dimbale yéene nañ leen indil si Wadduha ndomba yoo xam ne bii kiir laay lay doon kiir laay lay doon si lépp si lépp si lépp rawatina ngànnaay te nu koy tuddee tul sunu yàlla dimbalee dinañ ko indi si fan yu néew si farmasi Wadduha di leen wax ne la fay jot a nekk comme noonu ngeen koy déggee mooy cuuraay bi cuuraayu seytaane mooy kiis bi fa tabarakalla la nga xam ne day nam xelu xeleel waaye mooy liy aar xeleel yi njagamaar yi ba nga xamee ne bii nu bëgg kook nu forcé leen si du mën a nekk du nu mën a may yàlla fa tabarakalla mu ngi si farmasi Wadduha luy aar daamar tamit mu ngi si moo xam scooter ba la welo ba la oto la gaal lu mu mën a doon rek si kàttanu borom bi kiir layu daamar la boo xamee ne bi si sunu waay jur alxaaji yàlla si sa yenn yàlla yokk leeram nañ ko jëlee woon moom mu ngi si pharmacie wadduha waaye kiir layu kër dinaa koy wax kër yi nu leen di taaral la ni leen taaralee si nu taaralee ko noonu si biir moom da ngeen ko fekk si pharmacie wadduha da ngeen fa fekkit loo xamee bi day toj toccal la lépp luy liggéey si kàttanu borom bi lépp luy pas-pas te macha allah sababu njabar bari lool lool lool lool lool mm, nga man si jàpp ki nga xam ne mu ngi si place am di liggéey ba mu yàgg te mënatu fa teg place am mënatu fa dugg su fa duggee day xat fa te muy lu bari tamit macha allah. nga man si jàpp ñi nga xamee ne bii ba nuy xeleel ba nuy nekkee sa collège ba ba nekkee lycée ba ne université lan commencé woon di bëggante jàng ba pare macha allah mm, yàlla dimbali leen nuy sëy yàlla dimbali leen nu am njaboot yàlla dimbali leen nuy tabax di tabax dem ba nga xamee ne bii man nga ne finition lanu nu deseel lan tabaxoon lépp. nu walbatiku di koy daane te mooy dootuñ jaaroo seeni wax dootul dëppoo macha allah ku si xool sa moroom sa xol yëngatu ku si wax dara rek macha allah eh, keneen ka explosé muy lu ni faral di gis si ànd te mooy li ñuy wax dëddaale moom it bokk si xeetu njabar nga xam ne mas naa koy wax ne dëddaale diggante doom ak way jur te muy lu bari lool fa la nit mas nay ñëw si man ne ma oto bi ma indi bi may ñëw sama dooma ma ko indil boobaa léegi matul 40 jours te bu ma ko woowee wooyee téléphone fi nu tollu du décorosé ndax ñëw na for si mbedd bi benn jigéen présenté ma ko ma ne ko jigéen ji du soxna waaye jabar la may wax lu bari diggante jabar ak soxna wuute na tere googu papa ji wax ko ne ko kii du kii du soxna waaye jabar la doom ji noonu ko si fa tabaarakallaa ba. bu ko wootee sax du ko wuy téléphone loolu kon loolu yaa quelque chose fa tabarakallah muy loo xam ne day di am si dëddale wayjur ak doomam dëddale jëkkër ak jabar dëddale nit ak njaatigeem dëddale uh, ak fu mu sa mën a doon rek du lu diine gërëm di loo xam ne man jàpp naa ne ma wadd ak raxma bi war a nekk si sëy nga fexe ba xaddaawa ak baxdaa nekk fa loolu yi jàpp naa ne jullit bu jullitam wér waru koy def jàpp naa ne it kenn du ko def ba pare tranquille di jàkkaaroog borom bi naan danga koy jàmm ndax war nga xam la la borom bi xaare ëllëg te boo demee si suratu baqara da nga fa fekk si ne lu am la fa tabarak la si babu xaaruta wal marut fexe dem ba ma sha allah ndox ak safara nin déggadi diko xaj ak mus nan déggadi diko kaw ak suuf nan sore ma sha allah ñax ak safara ma sha allah nonu nu mel nga fexe nona ñoña mel nonu loolu la bàkkaar la fa tabaraka la nu koy maytuloo ñu bari loolu it lu bokk na si xeetu liggéey yi am na si pharmacie Wadduha loo xam ne daf koy toj xeetu liggéey comme li ñu wax naawtal te mooy li ma wax léegi nekk si barabam yàgg bëggatoo faa teg sa tànk walla macha allah kër gi li muy yaatu lépp dafa mel ni si ngunu lan la dugal waxuma la portable waxuma la pantre waaye ngunu lay tolloog yow loluy xeetu nawtal yooyu fa tabarak la am na si pharmacie Wadduha loo xam ne daf koy toj xeetu liggéey yi nga xamee ne bii macha allah saa yu jant tàngee rek borom dootul am jàmm waaye saa yu jant sowee borom dootul am jàmm doon loo xam ne lii la ñu booleeg tàngoor bi la pour saa yu tàngee rek sa jàmm jeex waaye lii fa tabarak la dañ koy def si barab boo xam ne saa. loolu noona muy sedde say cër yépp noonu lay mel loolu yi doon si xeetu njabar moom it am na si pharmacie Wadduha loo xam ne bi daf koy daf koy toj xeetu liggéey yi nga xam ne bii macha allah bu dee si soxna dëj soxna ba nga xam ne bii jël gileem dugal ko si ban banu puso koo ko dégg rek danga naan loolu mënu la nekk noona it la koy jëkkër mën nga ne noonu la ko jëkkër di jafe doon loo xam ne bi mën nay nekk liggéey yu bon yoo xam ne si selebe yoon fu nekk nit mën na fay jógee ñëw waaye déggal déggal la alxayr yi du yomb te mooy xeeti liggéey yoo xam ne bi gisuma lu koy jar mooy xam bu fekkee da nga yéene woon ne kii rekk na nekk sama soxna jaru ko su fekkee ne bii fa tabarak laa da ko uti te utiwu la nga ne su dul man du doon keneen te dinaa koy wax lu bëree bëri sinon soxna yu bëree bëree bëree bëri dañ leen a téye te nekk lu nu xam la di téye ñu si bëri nu ngi koy jiñ rab amaana ka ko def sax xelam génn na si mooy tax am na si yoo xam ne ku koy def rek war nga koy peese si sa bopp fatawarak la bari na si soxna yoo xam ne la leen téye mooy bu dul man du keneen loola nekk fi rek feeg loola tëjul ku ne mën nay ñëw waaye alxayri du koy dégg moom it fatabarak la Euh, loola su tëjul mën nay gis ku nekk mën nay jokkoo ku nekk waaye déggal ko say du yomb loolu si xeetu njabar la dinay doon si xeetu njabar tamit def soxna loo xame ne bii toujours bu waree tëdd bu ko sëriñam waree sàkku day gis deret wala fa tabaarakalaa day tëju ba nga xam ne bii du am benn yëg-yëg si diggam ak sëriñam loolu xeetu njabar yu bon la yoo xam ne bii ñaare sayaatin yi noo koy def ñu koy def dañuy yónni saytaane mooy dugg soxna si ba nga xam ne bii macha allah noonu lay su waree ànd ak sëriñam dana gis dareet wala macha allah dana téye cëram noonu muy amee si soxna yi lay amee si góor comme li ngeen ni tuddee ni ni tuddee xala te dinaa koy wax ne macha allah. nekk ak sa na soo ko tegee loxo doo am lenn loo yëg loolu yaa quelque chose yooyu xeetu njabar la lii fa tabarak la euh, si pharmacie Wadduha bokk na si li nga xamee ne bii man da koy da koy toj bëri na ñaare am na si njabar yoo xamee ne bi macha allah dinañ koy def jigéen ba saa yu wannee lor saa yu yore dara rek loolu tuuru loolu it doon liggéey yoo xam ne sayaatin yi noo koy def lu si bëri loolu it bokk na si xeetu njabar moom it lii dana koy dana koy toj dana koy saafara ak lépp loo xam ne bii xeetu njabar la si kattanu yàlla eh, yoon boobu nekk si pharmacie Wadduha si kattanu borom beeg man manam daf koy toj danay nekk kiirlaay it <coughs> ba nga xamee ne bii njabar da sa mucc luy tolloog juróom-ñaari at loolu yàlla dimbali nañu <clears throat> si kàttanam ak man-manam mu ngi si pharmacie Wadduha waaye nu baaxee leen si bayre comme ni ma ko waxee woon bayre nu koy tekkee bayre <clears throat> nu koy tekkee si ne kon waajur mooy bunt si doomu aadama képp kuy bëgg rek macha allah say mbir di yéwén képp kuy bëgg macha allah nu warmal la képp kuy bëgg it macha allah dooy am gàcca adina nu ngi koy digal képp kuy dund ak say wajur lépp loo mën a góorgóorlu loo mën a gën a góorgóorlu si ngay fexe say seen xol di sedd si ngay fexe nu lay ñaanal <clears throat> si ngay fexe du nu la jéppi si ngay fexe doo yëngal seen deret lépp loo si doon góorgóorlu rek nga yokk ko dinaa koy wax lu bëree bëri ne ñaare da ngay gis koo xam ne wër la dabu ji raw na ko bi yàgg ndeysaan ma mosoon ko wax ba ma xëyee benn xeleel ñëw fa jooy si ne dafa rëccu ndax li may wax lu nuroog loolu daana koy dund ak ay way juram te fi nu toll mënatu leen a gis ba bàllu leen àq ma ne ko sunu boroom ku bari yërmande la tuub ko te nga leen di ñaanal wala nga leen di ñaanlul nga leen ñaanal su fekkee ne bi yàlla dimbale na la nga jàng alxuraan day wàcc ay kaamil yu bëree bëri di leen koy yéene boo leen ko yéenee yool bi ba pare nga sàkku yàlla ak njéggal si ñoom su loolu yombulil ngay ut ñoo xamee ne bii mën nañ koy jàng nga def nga def ko yéene leen ko boo paree togg ay ñam sarax leen ko yéene leen yool ba ba pare nga yéene yàlla jéggal leen fa fa nu nekk fa tabaarakalaat foog naa way jur ku nekk xam na ñewent bi nekk si diggante way jur ak doom tey dee er làqu la rek ñu nekk barsàq ñun noo ñoom noo doon sunu kumpa waaye ñun doonunu seen kumpa mooy tax toujours boo leen dee ñaanal dañ lay ñaanal yow nga gën a yàgg nga gën di tal di lay ñaanal mooy tax xadis ne doomu aadama bi su bàyyee ñaanal ay wayjuram wërsëgam day wàññiku tegtal la si ne fa tabarak laa jur ba nekk barsàq saa yoo xëyee jox ko ndékki te mooy boo julee fajar yónnee ko xaddiya soo jullee tisbaar jox ko añ yónnee ko xaddiya soo jullee tàkkusaan jox ko lum deseeroo soo julee timis semi jox ko lum reeree tegtal la si ne fa tabarak laa ñaan yooyu yépp day àgg sa moom mu mel ni ki bu fi nekkoon di dundandoo yow nga di koy toppatoo comme ni doom di toppatoo wayjur te ñaan yooyu yépp su demee si moom daf say xéewlu bu sa xewloo ba pare daf lay ñaanal yow ma koy ñaanal nga yàgg lool di koy yónnee ñaan waaye lépp loo xam ne gàllankoor la yàlla euh, soril la ko mooy tax macha allah ngay gis ñoo xam ne bii ñaan yooyu danay tax saa yu nu naree am jafe-jafe lay la ni génn sa jafe-jafe ba lu miracle lay doon fa tabarakalaa kon nu ngi ñaax ñëpp képp kuy dundandoog say wayjur lépp loo gën a man si tarbiyewu leen nga def ko <coughs> ki nga xamee ne bii ay wayjuram jiitu nan mu bir ko ne nam ko mëne woon sa bani dund ba tey jiit man na ko te mooy lépp lu yiw mu def mu koy def di leen ko yéeneel fa tabaraka muy lu ama ama am solo wayjur fa tabaraka la ngi koy ñaax ñu bëri bëri bëri mu am si farmasi bi bayre fa tabaraka yoo xam ne bi danay dindi tënk-tënk fa tabaraka la dinay way yombal tamit lu nit di jaay te mu bëgg mu yéwén fa tabaarakala moom it ngeen mën ko am si pharmacie Wadduha pharmacie Wadduha nag fa tabaarakala euh, am na point 1 comme ni ma leen ko doon waxee euh, point 1 fa tabaarakala sunu jur ya fa nekk man ngeen a jokkoo ñoom si 70 922 23 75 70 922 23 75. ba tey fa tabarakalaa su fekkee ñi dëkkee boori tëngeej la mën ngeen ko am si sunu jigéen soxna Aram Ndiaye si 77 262 36 28 77 262 36 28 fa tabarakalaa bu fekkee ñi dëkkee boori Fatick Mbour Suwal ñoom it sunu jokkoo ak ñun si kattanu borom bi incha allah dina leen jox numéro ñi nga xamee ni bi noonu nekkal mbuur <coughs> daaray wadduha bi nekk foofu te mooy madame ñaa ak sëñ Yaxya Ka fa tabarak la ku jokkoo ñun si 77 617 70 44 77 617 70 44 mooy numéro Mara Cissé fa tabarak dinañ la gindi su fekkee boori géejawaay nga dëkkee moom it am fa pharmacie wadduha su fekkee ne bii da nga ko ittewoo yeneen i barab danañ la jox coordonnées fang ko meuna amé kon Iba mars ngay am lonu yëkkatil tout ni ñëwaat ak yéen seen émission war Wadduha nasaluka ya man huwa allahu alladi la ilaha illa huwa arrahmanu arrahimu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

ngir faj sa mbir waduha yàlla mo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji Mamadou Cissé Mara wa góor allahumma salli afdal salatina ala اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم sallim الحمد لله رب العالمين سنة ميسيون mu mel ni kii 23 heures 30 man ngeen euh, wétali konte ñun ba tey si 33 868 27 62 bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah ñëwaat <laughs> ah soxna jërëjëf madame Ndiaye sëñ ah madame Diallo <laughs> waaw papa sant Ndiaye waaye moom sëñ bi Diallo la. ah kon ma dem waaw madame <laughs> Diallo. jërëjëf léegi naafila kii bi bi nga njëkkoon joxee ci ixlaas bi. waaw. moom laa doon laaj kii saar bi ba mu jeex la wala. waaw waaw saar bi ba mu jeex. waaw xul wala ahad ba mu jeex. ba mu jeex. Mm-hmm. waa léegi damay raccourcir après nga pour euh, kii rakkaa yi. waaw bu ci nekk ñaata yoon lay doon moo ma xaw a échappé. incha allah si kàttu yàlla baax na madame Diallo baax na waaleykum salaam wa rahmatullah incha allah 33. 868 27 62 seen émission Wadduha eh, rakk yi comme ni ma ko waxee woon juróomi sëlmal la di fukki rakka ñaari sëlmal yu njëkk yi bu si nekk gannaaw fatiha onze xul wallaahu ahad lay def mooy tolloog huwa <coughs> juróomi tul la yi nekk si saar bu mooy huwa allahu ahadu allahu alsamadu tur bu si nekk nag da ngay naafila limam هو موي تولوك اونس موي نياري نجاكي بو سلمالي لون سي تك هو هو الله احد احد نيات لا تريس موم لا سي تك موم موم لاي ديف سي الله مو سي توب 66 موي نياري لو سلمال بي نياري لو سلمال بي موي نيات اك نينتلو راك بي كوم فكي راك لا دون جيرومي سلمال نياري لو سلمال بي غناو خول هو الله احد غناو فاتحه الكتاب qul huwallaahu ahad lay def 66 doon limu allah ñetteelu sëlmal bi di juróom ak juróom benneelu rakka gannaaw fatiha qul huwallaahu ahad lay def limu ahad te mooy 13 gannaaw fatiha qul huwallaahu ahad lay def ba mu jeex mu def ko fukk ak ñett ñeenteelu sëlmal bi mooy juróom-ñett ak juróom-ñeenteelu ràkka bi gannaaw fatiha day def xul wallaahu ahad 66 doon ñaareelu allah bi moom lay def si xul ak fukkeelu ràkka bi mooy juróomeelu sëlmal bi gannaaw fatiha day def xul wallaahu ahad 135 nee na mooy al samadu samadu 104 la boo si boolee alif ak lam bi day don 135 fa tabarakallah muy juromi tur yàlla yoy soko bolé nan lay tollool alhamdulilahi rabbil alamin soko ko par deux huwa huwa allah ahad allah samad soko ko par deux day don 512 512 moy tolloog alhamdulilahi rabbil alamin mom ngay def bo paré si julli gi alhamdulilahi rabbil alamin dang koy def 512 waye so defé 512 ba pare nga def astaghfirullah 474 nga ne sa 474 mooy lan mooy 512 multiplié par 7 juróom-ñaari alhamdulilahi rabbil alamin mooy cinq mooy 500 mooy 474 tolloo ak turu yàlla bu mag a mag a mag fa tabarakallah mooy salaatul hamdiya fa tabarakallah mu ngi si kitaabu doxa naafila la boo xam ne bii macha allah comme noonu nu ko waxee foog naa macha allah lu sa nit sàkku te pas-pas ba dëgër bu sa wooyee borom bi borom bi dana ko sa wuyu ndax suratul ixlaas ga ak tawxiid ba ak waxdaan ya ba ngay jox borom bi mooy tax boo si wooyee yàlla rek yàlla daf lay wuyu si lu gaaw nga def ko nag lim boobu muy la boo xam ne macha allah naafila bu barkel la comme ni ma ko waxee rek képp koo xam ne yaa ngi koy dégg jamono bii te am lu doonoon aajo si yow. def si tawassul def si tabaruk fa tabarakala nga xam ne borom bi ku jege la borom bi ku nu diggal la nu di koy ñaan waaye moo nu dig ne sunu ko ñaanee dana nu may fa tabarakala 33 868 27 62 soxna si koy déglu jamono bi bu ko neexee mu dogu si borom kër ki koy déglu jamono bi tam borom kër amagul njaboot na si dogu njaboot ki nga xamee ne bii mu ngi wut papier bo bi bu ko amal njariñu la na ci dogu fa tabaarakalaa ñaan yalla jappandalal ko ko ak lepp lepp lepp loy aajo nga xamee ne kenn rek mëna faj aajo yi te moy borom qudratu irada moy jalla jalaluhu nga deexente sa ak mom si yoon bi si kattu yalla ak man-manam yalla dana la si won buntu di ñaanit fa tabaarakalaa ñëpp fasaale si si ñaan yi ndax na ma ko waxee woon du tey laa ko wax waaye macha allah macha allah eh, fu nekk jokkoon si ak doomu aadama ndax naafila bi mu ngi si sit bi si wadduha point org ku fa demit boo fa demee bu leerul dana gën a leer fu nekk si àddina bi jokkoo naa si ak doomu aadama si tawassul bu mu si defoon ak tabaruk la mu su woon yàlla defal ko ko te looloo yéene bi ñëpp mucc ñëpp yokk fa tabarakallah 868 32 27 bismillah 30 27 62 bismillah. waaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. xanaa na nga yendoo. nu ngi sant bu baax yaram. di leen yal na yàlla nangu. yal ko yàlla boole. Euh, man nag dama nekkoon taalibe bu bëggoon xam fu la mën a fekk. Insyaallah si kattanu yalla buntu lycée sayidina Limamou lay bu geje way inshallah lu dul besu aljuma si kattanu yalla ma ngi foofu. Euh, mën nañu Insyaallah, insyaallah. suba bu soobee yalla inshallah inshallah incha man sa dom bay usman Ousmane Cissé tudd. baax na Cissé. may ñu fanaan amin amin amin Cissé barakalaa fika. jere jef suba di altine fat dan koy faral di baye ñi nga xamne sax musunu fay ñew ndax ñaari li ñuy fanaan rajo dimanche mooy tax si danay gën di jàppandi pour ñi nga xam ne mosuñuy ñëw daara ja bésu altine buntu lycée Seydina Limamou Lay bu Géejawaay bu wàccee rek dana jàkkaarook boutique bu tudd Touba téléphone am na tableau bu fa nekkit bu nu bind Touba téléphone Kër Mara Cissé boo toppee flèche bi rek macha allah da nga ñëw sa kër ga si kàttanu borom bi lu dul bésu àjjuma si yàlla na nga fa na nga daara ja bu dee pharmacie bi it fépp fu waay nekk boo nu wooyee dinañ la woo dinañ la jox yoon boo xam ne mooy gën a gàtt su fekkee jóg yombul fa tabaarakalaay bu dee lépp lu nit soxla woo tamit ak si Wadduha ma ngi fi si kàttanu yàlla soo jokkoo ak moom bu fekkee jóg dafa jafeñ dana la ko indil ba sa dëkkuwaay wala nga bëgg fa ñëw tamit boo déggoo ak moom mën na la indi wala nga ñëw fa bëgg a dellu it mën na la yóbbu si kàttanu yàlla muy. auto boo xam ne bi macha allah si service am yëpp si Wadduha lay lay lay dox 33 868 27 62 33 868 27 62 mooy yoon bi seen émission Wadduha Alxaaji Modou Cissé nu fi wettali compte tey ak Iba Mar Diop mu melni ki li ci dess ci ay minute bariwul waaye man ngeen noo topp ba tey si 33 868 27 62 dënn badaaya loxo ya jot muhammad nga am ñaari sa Mamadou lay lay la la Mamadou Mamadou Mamadou ya Rasulallah Mamadou Mamadou way Mamadou lay lay la la Mamadou Mamadou Mamadou loxo yi Mustafa ibnu Abdallah turam ak a neex turu ak a bari may kooka muhammad basiru mooy turam sëriñ Baara Juuf fa tabaarakallaa si xasidaam ba am solo boobu te mooy muhammad rasulillah muy macha allah xasida boo xam ne depuis 2011 moo ni wettali si émission Wadduha fa tabarakallah nu ngi koy ndokkeel bu baax di koy ñaanal nu ngi ñaanali sunu wóorlëre Serigne Ousmane Diouf doon wóorlëre fa tabarakallah nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy di koy ñaanal 33 868 27 62 mooy yoon bi ngeen mën a jaar pour dugg Sen émission Wadouha 100.8 c'est Almadina Dakar 97.8 tamit sa Kaolak, fa tabaarakala Yonbi. 33 868 27 62. di fait, le site bi mooy wadouha.org. point w a nga def ñaari d def i as a point orc, fa tabarakalaa lépp lu nit bëgg dabu si waxtaan boo xam ne mas ngeen ko am si Wadduha lépp bépp information bu nit bëgg a xam si Mara Cissé su fa si kàttanu yalla dina dina ko xam dana gën di yomb it lu mu fa bëgg a dégluwaat lu mu fa bëgg fàttaliku si borom bi su ngeen demee si wadduha org da ngeen ko fa mën a da ngeen ko fa mën a fekk. fa tabarakallah di numéro 617 70 44 77 617 70 44 su fekkee numéro Expresso bi 70 104 79 17 70 104 79 17. si kàttanu borom bi képp ku si jokkoo ñun amul intermédiaire ñun ngay jot direct si kàttanu yàlla loolu loon mas def tey duñ ko sensé ndax macha allah ñu yéene jox doomu aadama cër lan ñu ko yéene lan foto tabaraka ni ma ko doon waxee ñu yéene am teggin lan tamit noonu nu ko yéene noonu lan bëggee macha allah ñëpp delloo na ko eh, na ma ko doon waxee teggin dafa am solo. sunu waajur Pape Joxaane ni mu ko waxee aw teggi xiin allah dafay baax si nit danay tax <coughs> danay guddal fan tey danay maye barke loolu nu ngi si ñaax sunu bopp di koy ñaax ñépp jamono nag day dox génération yi duy bokk waaye buñ di roye roye ba dàq nan de xam ne ñun ay sénégalais lan am na ay aada yoo xam ne aada gënu ko fa tabarak la am na ay royuwaay yoo xam ne bii royuwaay gënu leen te mooy sunu kilifa yu baax yu màgg yu tedd yi nga xam ne ne bi noo fi nekk kon nu yokk teggin nu yokk it eh, macha allah sutura nu jomb tamit yooyu lu si manqué rek safaan mën na yomb fa tabarakalaa nit def daan jomb nangam de jomb naa ko def nu koy dégg wala nangam eh, rus naa koy def romb papa diw wala maam diw wala nijaay diw wala nangam rus naa dégg nu ne maa ngi koy dem naa fa wala wax naa ko yooyu nag suy manki dem ba nga xamee ne da nga gis nit ñàkk kersa ñàkk teggin boo woote lu toll ni rajo wax kaddu goo xam ne bi ñëppay tudd yàlla loolu du du lu jag te muy xaw di am yenn saa yi te it fa tabaarakallaa loolu du ngóora du du ngóora du jàmbaar fa tabaarakallaa mais ko loolu nanu koy bàyyi xel fa tabaarakallaa comme ni ma ko waxee woon si émission bi passé si ne yàlla lu bëri wala man nga ne lépp daf koy nabbu loo nu nëbb nag buñ la dugalee si néeg nëbbu fa dara làmbatooy rek kay tax nga daj noona ngay làmbatooy it macha allah nay ak mooy waral képp koo gis rek nga wàcce ko wàccuwaayam nga jox ko màqaama ak martaba bu mat sëkk rawatina koo xam ne ay atama ëpp say loolu lu am am solo la si képp koo xam ne moo la féete mag aguma sax si kilimat wayjur waye kep ko lo fete mak rek nga wacce ko wayam nga mal ko nga teral ko fa tabarakala lolou lo xamee ne bii nu koy ñaax ndaw yi nu jital ci sunu bopit fa tabarakala di wax ne ñun nonu lan ñaan yalla mel nonulan lan ñaan yalla mel jox nit cer war mal ñepp fa tabarakala 33 868 27 62 mooy yoon bi 33 868 27 62 seen émission Wadduha fii si Almadina FM xam naa lanu dese si ay minutes taxul mu bëri Ibamar daf nu yëkkatul tuuti Alxaaji Fàllu su ko defee nu xaar leen foofu it. نسألك يا من هو الله الذي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 andi wat kitabu wa du'a tere bu bari njariñ tollu ci ñetti témèr ak fuk ak ñetti pass lolu de moy jesu sun ñu doon xeex ay ñaan ak nawafil ak lenn ci njariñal suratu yasin ak mboti juroom ñeen fuk ak juroom ñeenti tur yalla yi di asmaul usna Amna nafila naafila buy faj aajo amna mbotum daqairul daqaa'irul rasid dalay ar musal ci ay non ak seytaane amna dara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

sayyiduna muhammad ya ma gënal ya ma manalo mënaloo rasulullah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin jere alxaaji alhaji sise mu mo melni ki no ngi ci minute yu mujju sen émission wadduha di wax ñepp ci katnu yalla ak nimbalam suñu yalla dimbalé dimanche bu nek danan wettali konte ak yéen fii si Almadina FM 100.8 point 8 dimanche bu nekk si kattanu yàlla da ngeen mën a am rediffusion yi mardi si fajar sak mardi si fajar da ngeen ko mën a dabo di wax na it yéene ko xaadati xii comme nan yéene woon di koy def te macha allah nu sant si yàlla ndax Wadduha àgg na fu nekk si àddina bi. Eh, macha allah yàlla dimbale nañu kitaabu Wadduha nee naa mu ngi si cinq continents yi yëpp site fa tabaraka la amul néew na réew bu nekk si àddina bi te concentré wul fa Wadduha point org loolu kon tegtal la si ne lii yoon bii nga xam ne bii moom la nekk macha allah nit ñaa ngi koy bàyyi xel ñu bëree bëri bëri nu ngi si ñaax nu ngi si ñaax ngir nu bañ koy wàcc. loolu it mooy tax lépp lépp lépp lu nu man si lu leen di jariñ si kattanu yàlla toujours dañu say gën a bay sunu waar sunu kem sunu kéem kàttan incha allah sunu yàlla dimbalee eh, saa yu nu fi toogee rek dana am lu loo xam ne moom la ñuy wettali konte ak yéen si kattanu yàlla yeneen ak yeneen ak yeneen i procès si kattanu borom bi danay am comme daara yu doxaa ni mu amee si mbuur si kattanu yàlla dinaa am fii te yéene ba mooy macha allah jàngal fa jaamu yàlla yi te du am lenn loo xamee ne bii moom lan say lan say moom lan lan say sàkku si kàttanu borom bi danañ gën a gën a taxawal Wadduha solidarité ba yenn tawat yi nga xam ne bii doomu aadama yi nu ngi koy deey te mooy tawatu poos te mooy loxo ba jotul gannaaw moo xam ay arriérés de location la moo xam fa tabarak la itte yoo xam ne bii macha allah. Eh, doomu aadama bi am na ko danañ koy gën a yaatal gën koy organiser ba bu buñ jot rek si kattanu borom bi lépp loo xame ne bi war na sa eh, danañ ko danañ ko def nu ngi nuyu tey siyaara tey ndokkeel bu baax tamit ñi nga xamee ne bi ñoom la ñu yàlla booleel ñu nuy jàppale si liggéey bi ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di ñaan yàlla yokkal leen ni tawféex yàlla yokkal leen sutura yàlla yokk leen aar di wax ne si kàttanu yàlla ñi dëkkee Wakaam lu yàggul dara danañ fa am ñu nu fa toogal si kàttanu borom bi pour li nga xam ne moom la ñu soxla si pharmacie Wadduha nu man ko fay am ñi dëkkee si régions yi nu ngi see xalaat si kàttanu yàlla waaye képp koo xam ne am na loo ittewoo si lu jëm si Wadduha soo jaaree si wadduha point org da nga ko am fa waaye soo jokkoo ñun si 617 77 617 70 44 si kattanu yàlla da nga jokkoo ak Mara Cissé 77 617 70 sunu dëkkuwaay buntu lycée Seydina Limamou Laye bu Géejawaay la si kattanu yàlla lu dul bésu àjjuma képp ku wàcc si buntu lycée bi. da nga jàkkaaroog Touba téléphone soo fa demee Serigne Fallou Ka ma nga fa si kattanu yàlla dana la woon dëkkuwaay bi looloo nekkoon seen émission Wadduha lépp loo xam ne jub na si nu koy sante yàlla jëla jëlaaluhu lu si safaanu it nu leen koy jéggaloo gannaaw ba nu ko jéggaloo yàlla di sant bu baax di ñaanal sunu jarbaat bi nga xam ne moo nu fi wettali di Iba Mar foto fa tabaarakalaa looloo nekkoon seen émission والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد رسول الله نمان قدم الجبران سيدنا محمد يا للجل سيدنا محمد يا من الجل يا من المنلو محمد رسول الله يا للجل سيدنا محمد Yeah.